asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina seen chaîne muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu ko baal di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daarayni di ko sàkku ci yéen mbokk yi ñu ngi leen di ziara bu baax ci àjuma ji di leen waxal jumaa mubaarak tey nag dañ leen indil tegtal bu am solo bu jëm ci ku bëgg borom kar wala ku bëgg soxna mbokk yi xam ngeen ni bari na ñu ko yittewoo lool te di ko faral di ñu ko jàmbat lu bare bari mu am ci loo xam ne nag ay gàllankoor la yoo xam ne li ci ëpp koy def nit ñaare dem bay bëgga takk nit wala waxtaan ba nga xam ne fas rek ci des nga mel ne du yow génnaat ci bam seen wicc loolu rab da koy faral di def rawatina bu dee ku jigéen ki xam ne ñaare ku ñëw mu dàq ko wala kuñ ko wax mu bañ ko wala koo xam ne bu demee ba ca biir génn ci du xam sax lu ko ca génne wala sax boo waxtaanee ba demee ba ci biir ku góor ko jékki-jékki génn ci mu koy dal lu bare bare lu mel noonu nag mel ne ko am gàllankooru rab da koy faral di ko def ndax rab fiir day fiir moo xam ku góor kee am moo xam ku jigéen ki ndax yu mel noonu dal na góor bu dee rab bu fiir lool pour mu yor soxna da koy jafe bu dee jigéen ki mooy bu yoree faru rab bu fiir moom it mu toog cib sëy wala yàgg cib sëy da koy jafe ah, kon nag gàllankoor yu mel noonu da nga koy jéem a saafara ku ko am fexe tàggoog moom loola wala bokk boo mënta tàggoog moom nga fexe ba dootul a yàqal ba dootu la yàqal waaye lii daal tegtal la yoo xam ne tegtal la boo xam ne ñaare ku ko def da nga bari ñu a seet si bu dee jigéen léegi nag lay def ci yow lay dese. moo xam da nga am gàllankoor wala leneen waaye daal da nga bari ñu la seet si euh, bu dee góor it kazalika comme nañ leen koy faral di leen koy maye rek saa yu nekk suñuy tegtal incha allah li ci ëpp dañuy bëgg du génn alxuraan su ko defee da ngay bind lu suratul waaqia boo bind loo suratul yoon nga koy bind. waaye saa yoo yegsee ci watalin mandudin wa dhillin man watalin mandudin saa yoo ci ñaari baat yooyu watalin mandudin moom da nga koy bind ñetti yoon bu ko defee nga soog a saar wi loolu nag mooy doon saafara si bu ko defee sunguf si nga xam ne moom ngay jaxasoo jaxasee ak saafara si nii lay nii nii nga koy bindee da ngay téeméeri xob bi faftal waxtaan nag euh, mooy acharyu ci arab acharyu euh, loolu yaa xuraan di wax ne naaran ashajari al naaran boroom xam-xam yi wax nañ ne ci jublu mooy faftan moo tax mu bari lool lu tàmbalee ca ya ba ca tóortóor su ko defee nga wut téeméeri xob faftan léegi nag té xob wu nekk ñu bind ca benn alam nasra xam nga muy téeméeri alam nasra benn su ko defee ne danga koy weer ba mu wow nga def ko sunguf waxtu woo tàngee ci saafara si di sangu nga comp ci sunguf si def ci sangu moom noonu lay demee su ko defee nga fexe sangu ci fukki fan ak juróom sangu ci fukki fan ak juróom lii daal mbokk yi tegtal la bu am solo boo xam ne moo xam ku bëgg a denc soxla mu jafe ko wala ku bëgg jëkkër mooy mu jafe ko ñaare su ko defee yàlla dana ko ubbi ci barkeb alxuraan ba loolee ko jafe woon mu yomb ko kom ni ma ko tàmbale woon sama jël benn waxtaan rek bu defee mu xam ne bu fekkee gàllankoor yu ne ci moom la mu fexe tàggoog yooya gàllankoor kon mbokk yi loolu la leen ci ajuma ji di leen dellu di leen ziarawaat di leen wax ajuma mubarak di leen fàttali ngeen way di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy yëkkati wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu